nga xamante ne ni mooy ci kaaw leena tuuti ak Silicki Noir benn film boo xamante ne tey jaar na fii xale yi ñu ba ñu mujj teg leen loxo am ba teg leen loxo tamit ba li nga xamante ne tey mooy Imam Mame Makhtar Jamra porte leen li nga xamante ne mooy plainte ci film boobu noonu parce que film bi ñu ne film bi maanaam xale yi euh, dañu doon incarné pour jouer li nga xam ne mooy pornographie film bi film boobu boobu tey lan ngay wax ci film boobu waaw problème film Silicki Noir daal mm-hmm. xëy na peut xale yi mm-hmm. man sama gis-gis lu gàtt luñ ci jublu mooy. Mm. tourner film théâtre njuumte nag day am. Mm. te nit ki si li ngay liggéey si ngay juumee. Mm. muy producteurs yeeg. muy élèves yeeg muy artistes yeeg ñëpp dañoo juum. dafa ëpp. mais man xaaruma woon. metti na ma neexuma te bu ma leen gisoon dinaa jël yar dóor leen. mais xaaruma ñu di leen jël di leen tëj. mu jël en tant que acteur culturel di ko tëj kaso. Sénégal dafa dafa dafa sa sonne mal dans l'oreille nit ki mën naa juum te nit ki bu juumee oo ko nga yedd ka ah kaay def nga lii lii waru la lii waroo ko def ni wala artiste comédien yi ñi fi nekk na ñoom ñooy responsable ñu dem oote ñoo dem jubal ci xale yi oo leen mhm. ne leen métti bi lii ak nii lay demee nii ak nii mais gis nga bu bu bu problème mu artiste comédien amee Sénégal mhm. ñoom ñuy wax ni ñoo ñuy jiite ñoom dañ naan pat xam nga mooy jóg Jamra mooy mhm. te loolu moo dul yoon Jamra avant muy jóg dafa war a xaar sañu consulter ka mais ñoom ñi nga xam ñooy kilifa yi arcos yi mm-hmm. ñoo war a ree réunion waxtaan dem fekk ji xale yi fa ñu nekk oo leen balaa kenn ci jot ah def ngeen erreur de def ngeen jum métier bi ñu nekk di lañ lii lañ ci def leen di njuumte la mm-hmm. yedd leen ba prochaine fois kalaay def théâtre sax di nga jël sa produit yóbbu ko ba ci ñoom jox leen ñu visionné mais nit ki bu la wanee ni faalewu ma loo def baax na mm-hmm. yow da nga Hmm. léegi nag jamra day tax jam am res am accès si ñun. mais kaawu lee nag kaawu jam ba circule na waay quoi hmm. jamra waru cee am yoon. dëgg la balaa jamra da ci am yoon fekk na artiste comédien yi fi jóg ñi fi nekk jóg nañ bu yàgg. Hmm. parce que seen métier la ñu laal. seen métier la ñu bëgg yàq seen métier la ñu bëgg a gàkkal. ñoom ñoo war a jóg. bu ñu jógee ba pare nag bu Jamra day ñëw sax ñoom mën nañuy intervenir si Jamra mais Mame Matar Gueye li muy dox lu yoon la ci yoon la ko teg mais booy yi tamit li ñuy def njoon yi def na ci yoon la mais njuumte la ña leen war a oo nag gindi leen yedda leen ñoom ñoo deful seen li ñu wareef loolu la quoi Jamra nga gisee jamono ji ñu toll est-ce que nekkul day paralyser tuuti euh, li nga xam xamante mooy yenn film yi Euh, dinañ xaw a pénaliser tuuti ci comme te yenn personnage yi mhm. ak yenn langage yoo xam ne dañ a mën di ko wax ci film bi parce que infidèle am nañ problème mel noonu ci kaaw leena mhm. ci côté leena tuuti te boo xoolee moom tamit dem rek boobu ba léegi euh, tegguñu seen tànk ñu ngi dem ak ñoom ci yoon di yéeg ak wàcce ak ñoom mooy ci li nga xamante ni fimo dafa sumi li nga xamante mooy silibam ci biir filo bi mais gars yi toujours dañuy wax loolu euh, maanaam image euh, dëkk bi dëkk islaam la wala nit ñi war ñu ko di ko suivre léeg-léeg lii te da ngay dégg ñu ne am na yeneen film yi gën a dangereux yoo xamante ñu ngi war a ñëw ci ginnaaw après non problème bi mooy